Nous sommes bien dans la région de Kaolac et c'est un des 60 puits financés par l'association Au Pain et Sourire. dañuy ñëw fii tey incha allah di inaugurer teen bi nga xam ne commencé woon nañ ko bu yàggul mu mel ni travaux yi yàggul daal te loolu xéwalu yàlla la ndax mënoon nañu gën dina di gas te duñu am ndox comme ni ñu dalee ci yenn zones yi wala ndox bi ñëw du neex mais alhamdulilah fii yàlla suturaal nañu ba ndox bi bëri na maanaam neex na. tey liggéey bi méttiwul loolu la loolu sant yàlla la ten bi nag ñi ko financé woon nekk benn groupe bu nekk France tudd Au Pain et Sourire nekk ay partenaires yoo xam ne ñu bëgg Sénégal lañ ndax bari na ay chaînes yoo xam ne ñu ngi ko fiy def te lii rek lañ ci am mooy ay vidéo rek lañ ci am après en retour ak am yaakaar yàlla subhaanahu mu fay leen ndax yonent yàlla sallam wax na ne bokk na ci sarax yi gën mooy saraxu ndox mooy saraxe ndox kon ku jox ay nit ndox maanaam pour ñu mën a dund loolu fay bi kenn xamul loolu yëpp ay tuyaaba yoo xam ne dellu ci nga xam te ne ñoom ñoo ko fi def yàlla yàlla fay leen yiw bu fekkoon ne ñun kese rek mën nañ koo liggéey yàlla moo ñu dimbale sutural ñu ba xiiwal bi ñëw fi suñ loxo fii askan bi yëpp ngeen ko defal waa dëkk bi yëpp parce que ku nekk dana ci njëriñoo te njëriñ boobu bu soobee yàlla ki ko financé dana ko yegg ci moom mbégte bu rëy lañ ci am parce que ndox daf ñu sori woon fi mu nekk nii ndox jege na ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal kat yi encore te di ñaanal yalla na yokku yàlla na yàlla fay defal leen ñu sutura aduna àllaaxira ñun jigéen ñi ndox lu ñu jafe woon la da nga yor sa kër gi dem sa teen bee wëgg-wëgg ba bëgg a dee ñëw boolekaak sa liggéey ba pare ndox mi naq dina naq goo xam ne yaa ma gën a xam góor ñi seen ab dépasse suñ la joxee saabu da nga dolli ñaari saabu ba ñetti saabu te léegi benn saabu rek boo ko xamee da nga mën a fóot ndax mi moo ko changé loolu xeewalu yàlla la si jigéen ñi rootu tuñ ba sonn xenu wuñ ta bu ñuy fóot tamit daf ñuy yombalal ñu ngi leen di ñaanal yàlla lu ngeen man ren yal ngeen ko mën déwén yàlla yokk ba ngeen yëg ko. kontaan nañ ci teen bi wax dëgg yàlla macha allah. Cette association œuvre pour mettre fin au calvaire des populations à la recherche quotidienne du liquide précieux, l'eau. Ici, nul doute sur la qualité, car elle est douce et bonne. Pour cette raison, les populations ont adressé une mention spéciale au bailleur. Rendez-vous très bientôt pour d'autres projets d'envergure. Inch'Allah. لا لا لا